am ci atum 2002 kon nag Aliou Cissé liggéey ba muy liggéey am na solo lool ci équipe nationale bu Sénégal kon entraîneur yi nga xamante ni jot nañ fee jaar ñoom Alain ak ñoom kii di Amara Traoré Aliou Cissé moo leen gënub liggéey yoon wii nga xam ne gaynde yi nag ñoo ngi ci teg seen tànk yoonu dem ca final ba la amin yàlla nañu dem ca final ba kon nag Sénégal ma ngay def ay jaloore waaye démb tàggatu nañu nag tàggatu bu ama am solo kii di Ismaïla Sarr mi nga xamante ni ñëw na bu bees yàggul ca Lyon ya Fofana ak groupe bi yëpp kon nag xel dala ndeegum na ci kii di Ismaïla Sarr kii di Sadio Mané nag moom démb gaañu gaañu bi mu amoon bërki démb ca bopp ba moo tax démb ñu noppal ko entraînement wul kii di de Ballo-Touré it match boobee amoon na cab gaañu gaañu loolee tax na moom it entraînement wul kon ñaar ñii di saajo Mané ak Fodé Ballo-Touré démb entraînement wuñ waaye ñii di waa Guinée équatoriale ginnaaw bi ñu génnee ñii di waa Mali ci po mi ñoom kat la ñu xamle moo di bu ñuy jàkkaarloo ak deret ngir qualifier ci demi-finale ya ñu jugee stade di yéenekaay jël record yéenekaay entraînement boobee la dëggal gaynde yi entraîné nañ démb fukk ak juróom benn nag ñoo nekkoon ca entraînement ba onze yi nga xamante ni ñoo départoon contre ñii di waa Cap-Vert ñoom dañ leen a ber ñuy cukki cukki ndànk ngir noppal yaram ji gaynde yi nag ña ngay waajal bu baax a baax kañu war am ca quart de finale xam nañu ko muy Guinée équatoriale match boobee dimanche le 19 heures match ba ma ngay amee ca Yaoundé mooy capitalu Cameroun ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe ma nga fësal waa Saint-Étienne ya ca wu njëkk wa ñoom nag jafe-jafe yi ñu nekkoon mu di lan tegle juróom ñaari match amuñu ndam ñu ne déetawaay ñu nekk ca mbabba ya démb nag nooy waat nañu ndax am nañu ndam ci kaw Angers dóor ko benn bal ci dara ndam loole kat bi ko ñii di waa Saint-Étienne di wut doomu Sénégal bii nga xam ne Saint-Étienne la nekk jamono jii moom Angers la jógee dem Saint-Étienne di saada Thioub bu départ na football na ca lu baree bari waat nag ngir lan jéem a demaat ca kaw ndax kat ci jafe-jafe lañ nekkoon ca ñoo ngi woon ca mbabbe ndaare ñu jógee France wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Real de Madrid gita ngaas lay waajal ñii di waa Paris bu ñu yeggee ci le 9 mars loole nag mi ngi jëm ci Ligue des champions match retour lay doon waa Real de Madrid la ñu bëgg Santiago Bernabéu ba ñuy defer ñu mën bu ñu yeggee ca jamono joojee yépp mën a yemb wala genn wàll ga mën a yemb ñu muri bâche yi yi mën a dugg ca stade ba ngir mën a yëng yëngal nañu xamee woon Real de Madrid ci ngoon yu neex dëkk ba yëpp génn ñu yëngal mën a am ndam ci kaw waa Paris te loolee waa Real de Madrid ñoo nga ca ñu jugee Marca jël aas yéenekaay Eder Militão la fësal ca xët wu njëkk wa moom nag nee na la ñu bëgg ñoom waa Real de Madrid moo de lépp lu ñuy teg ci coupe ren jii ñu bokk ca ci ñoom waa Real dañ koo bëgg a jël loolee nag laataa muy dem ca Brésil ngir jongante ñaari match yi leen dese ci qualification mondiale ba boobee la becc kàddu yooyee moom nag journal bi nee na ko yow nag doo titulaire ca Brésil mu ne loolee nag maa ngi ciy liggéey bu baax a baax xam ngeen ne Brésil kii di Marquinhos moo fa nekk ak Thiago Silva waaye moom mii gëm na boppam nee na ma ngay liggéey ca loole kii di Daniel nag jege na lool ngir jógee ca Valence dem ca Atlético de Madrid ñu jógee Madrid dem Valence fekk fa Super Deportes lu bette moo nar a am ca Liga Santander ba kii di Ilaix Mouriba ñoo ngi koy séntu fële ca Valence ñoom ñii di waa Valence nag la ñu bëgg moo di àbb ko ñii di waa RB Leipzig mu ànd ak option bu saison bi jeexee ñoom waa Valence jënd ko fàttali ñii di waa Valence kii di Daniel Vaz dañ koo jaay Atlético de Madrid loole moo tax ñu koy wutal remplaçant tey jii lañ koy séntu fële ca Valence mu ñëw fa moom mii di Ilaxi Muriba moom nag ma nga woon ca kaan ba ànd ak waa Guinée kon nag moom mii di Ilaxi ña ngi koy séntu fële ca Valence ñu jógee Valence wutal li Barcelone fekk fa Esport ma nga fësal Ousmane Dembélé ca xët wu njëkk wa ma ngay wut ay pexe nag démb agent wam di Moussa Sissoko ma nga woon ca Barcelone toog na nag ak Xavi waxtaan nee na bëgg waa kër Ousmane Dembélé moo di Ousmane Dembélé toog ca Barcelone bañ faa jógee ci janvier bii waaye nag waa Barça nangu ñoo yéy ca loolee yàbbi ca la leen gënal moo di Ousmane Dembélé xaatim ak ñoom beneen contrat wala mu génn ci club boobe waaye njabootuk Ousmane Dembélé ñoom bugguñoo dégg loolee kon waxtaan ba ma ngay wëy ñu jugee sport jël Mundo Deportivo ñetti joueurs yoo xamante ni ca kaw la ñuy football moom la Xavi bëgg muy ñaari attaquant ak benn élie lo agent kii di Adama Traoré di George Mendes la mu xamal waa Barcelone moo di ñëw leen ngeen jënd kii di Adama Traoré ndax baax na ci club bi te xam na club bi ñoom nag waa Barcelone ña ngay liggéey ci loolee waxtaan bi nga xamante ni waa Barcelone séqoon nañu ko ak agent wu Ousmane Dembélé it journal bi dëggal na ko nee na jàkkaarloo am na kilifa yi nga xamante ni ñoo ëmb Barcelone ak waa kër Ousmane Dembélé waaye waa kër Ousmane Dembélé la ñu bëgg moo di Ousmane Dembélé des fa Barcelone nag nee na ko loole mën naa nekk waaye day fekk nga xaatim ak ñun beneen contrat liñ la tegal ci taabul ji daal maa ngi noonee su fekkee nangu ko mën ngaa xaatim ak ñun beneen contrat waaye nag su fekkee nangu woo ko balaa balaa 31 janvier dañoo bëgg nga lettuñu wala nga firiñu ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Capello la fësal ca xët wu njëkk wa moom la dalal nag muy wax ci Vlahovic si nee na ñëw gi mu ñëw ca Juve de dina indil Juve njëriñ gu baree bari ndax kat ku ko boolee ak Alvaro morota dina doon sëy bu neex maanaam diw bu neex a neex ndax gone gi càmmoñ la Alvaro morota droite la kon boo leen boolee ca kaw dina neex lool. kii di Mancini it ma ngay wax ci kan kii di Mario Balotelli mi dellu siwaat ci équipe nationale bu Italie nee na dellu siwaat gii mu dellu siwaat nag jàpp naa ne dinañu indil njëriñ ndax ma ngi koy wane ca championnat Turquie boobee mu nekk. ñii di waa Inter nag tontu nañu waa Juve mi indi kii di Vlahovic ñoom it jëli nañu Gosens ak kii di Filipe Caicedo kon kii di Inter mi nga xamante ni jamono jii moo jël pee ca Serie A ba ma ngay dolli dooleem indi na ñaari renfort ñu jógee Corriere dello Sport dem Torino fekk fa Tuttosport dëggal na kii di Vlahovic si de ñëw na ca Juve tànnal na ko sax numéro numéro sept lañ koy jox ba Cristiano Ronaldo doon sol kii di Alvaro Morata nag du dem fenn day toog ca Juve waaye waa Juve indi nañu ñaari renfort te noppeeguñu ba léegi ña nga ci kii di Sakamaka nekk fële ci Sassuolo waxtaan baa ngay wéy te jaar na yoon lool kii di Juve tamit na def très attention ci kii di Paulo Dybala ndax ñii di waa Inter ñoom it ña ngi koy bàyyi xel bu baax a baax ñii di waa Inter nag la ñu bëgg bu ñu demee ba weeru juin ñu mën a indi ñaari gone yii muy Sakamaka ak kii di Paulo Dybala te Inter a ngi cay liggéey ak ña ñu àndal ñu jógee Torino dem Milan fekk fa Gazzetta dello Sport extra Inter Inter mii nag fowul folowul ndax indi na ñaari rafor démb moom nag di Inter la mu bëgg moo di scudetto ba kenn du ko nangu ci ay loxoom Manchester City ak ñii di waa Inter ci kan Paulo Dybala ndax kii di Man City kat dugg na ca mbir ma dafa bëgg kii di Paulo Dybala mi nga xamante ni contrat am nangoogu ko yokk ba léegi ak ñii di waa Juve kon xeex ba jeexagul gaa ñi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba beneen vidéo incha allah